xeeti doxalin bi nga xamante ne nguur gi daanaka président bi moom moo koy yor daanaka moom mooy tijji lépp jiite institution république bi yëpp moom mooy buur mooy bummi tey tamit moom mooy teg politique publique yi ak naka la nguur gi di doxee ba ci sax li ñeel wàllum yoon ak doxalinu démocratie bi moom daanaka moom mooy doxal ci wàllu yoon dafa yor sax parti état ak yor tam majorité boo xamante ne dañ koy topp ci lu ne rawatina ci assemblée ba ba ci sax bopp moomeel yi moom président bi ñii di pouvoir religieux bi maanaam kilifa diine yi ak sax pouvoir traditionnel bi daanaka dafa mel ne dañu am déggoo boo xam ne naam sax binduñu ko ku nekk da ngay sàmm sa moroom ginnaaw alternance bu njëkk bi ba ci ñaareel bi ñetteelu alternance bi nga xamante ne nag patriotes yi ñoom ñoo ko yor li mu bëgg mooy mu am changement am rupture tàqali ko ak système bi nga xamante ne moom lañu fi daan gis du lu yomb nekkul rek lu ñuy wax ndax président de la république bi nga xamante ne moo nekk njiitu réew mi de avril ba léegi premier ministre am ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale faw nag ñoom ñu teg yoon boo xam ne dañuy toj li fi nekkoon jéem a tabaxaat beneen système boo xam ne ñoo la ñuy jiitee réew mi muy ci lu gën a gaaw wala loo xamante ne ci kanam lay ñëw ci loolee nag coalition Diomaye président am nañu rôle bu ñu ci war a jouer ñoom ñoo a jàppale coalition Soppi ak bennoo Benno defaatoon nañ ko ñoom coalition yooyu nga xam ne daanaka ñu jotee ci nguur gi dañu mel ne daal kuy pàccoo gato bi ñëpp bokk. loolee sax moo indi woon yenn jalgati yi ñu gis ñu teg ay conditions yoo xam ne dafa jur mal gouvernance ay détournement ak ay guerre risque boobee waa troisième alternance maanaam ñi jiite réew mi tey war nañ si bàyyi xel. ba duñu topp yoon boobu ubbi bunt ay transhumance loolee mi ngi ci kanamu patriote yi Pastef ak coalition Jomaay dafa mel na kon artu nañu leen ñaari alternance yi ni ñu lajjee ñetteelu alternance bi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk kon war na xam fu muy teg tànkam